tey en tant que activiste gis nañu réaction bi nga xamante ni peut-être euh, sortie bu Abdou Karim def na ko. Mm. bokkoon ci ñu jàppoon kaso mu moom aussi mu porté woon combat bi donc polémique bi bëri lool ci côtéem parce que tout simplement am na ay détenus yoo xam ne euh, dañu des ci kaso bi même su fekkente ni sax ci depuis régime bële la woon le temps que ñoom ñuy jël lenge ñu bëri jàpp ni peut-être euh, comprendre tuñu li nga xam ne moom mooy la vraie cause de son lutte. waaw secrétaire am na loolu tamit ñu bëri dañuy jaawale ci loolu par rapport ak moom Karim il n'est pas de Pastef. ok Karim musul xeexal Pastef en réalité Karim tous les combats qu'il mène c'est des combats de principe mën nga ci bokk ak moom mën xalaat kon mën nga ci bañ ak moom xalaat man mii nga xam ne mën naa ne léegi suñu relation dem ba dépassé affaire ru Sénégal. c'est un grand frère pour moi une référence aussi. mais des fois déggoo du ñu du ñu du bokk ay position du ñu bokk ay posture mhm. yi gars yi di def moom du ma ko def ay am na dégg ci ay considération personnelle avec lui parce que c'est trop petit. Karim quoi qu'on puisse dire il s'est sacrifié pour le Sénégal loolu c'est une réalité c'est des faits xool looy di ko daj la. Mm-hmm. a tout donné pour le Sénégal lépp lépp lu a joxe pour réewam Karim def na mm-hmm. euh, mm-hmm. wax na loo xam ne man yi mu wax yëpp am na yu ma d'accord am na yoo xam ne d'accord ma waaw.

duñu ay patriote mun gëwuma loolu parce que ci li mu basé wax loolu noonu c'est un fait bi nga xam ne même pas y avait même pas mille mille patriotes dans dans ce hmm. ñoom ñoo euh, le président Diomaye Faye toog ñuy tàcc Ousmane Sonko loolu la gis loolu la première institution du Sénégal hmm. personne hmm. bu fekkee ne y a des réalités nga xam ne duñu procédures yuñu jaar ba mu ba mu nekk président parce que ñëpp xamoon nañ le choix des Sénégalais c'était Ousmane Sonko mais comme que nous sommes des républicains mayuñu ñu loolu Diomaye mooy tamit nangu xam ne carrément que Diomaye mooy président mm-hmm. li ñu def ne peut que mais warul tax benn erreur même pas mille personnes patriote def ko nga jël globalisé ne patriote euh, Pastef du ñu patriote. Mm-hmm. man je suis de Pastef. à la base te moom xam na bu baax ne man béy naa je suis un patriote c'est des erreurs de communication parce que tamit terme ñu xam ne ko ak tempérament ak buy wax xër-xër bi muy demee c'est des erreurs kii ñëppay def ñëppay juum ñëppay def erreur mais ça ça moom li mu jot liggéey yëpp nga nga bëgg ko def si mbuus <laughs> en tout cas doy na waa donc comme ni nga ko waxee xëy na loo xamante la xamante ne la mënuñu ci woon bañ a wax parce que dafa dafa viral en fait ci réseau réseaux sociaux yi te gis naa démb euh, ku ci mel ni professeur Cheikh Oumar Diagne jaral na ko sax mu def ci sortie pour interpeller patriotes yi à l'endroit de Karim donc aussi bu fekkee yéen da ngeen récupérer li nga xam ne moom mooy pouvoir bi tey peut-être du ku wax rek ngeen bëggoo ko tontu aussi dina xaw a compliqué parce que gis naa sax euh, ñoom patriotes yi commencé nañu wax waa opposition bu bees bi <laughs> ñoom ñooy manipuler ainsi de suite donc yéen am nga loo xamante ni moom moo gën a primordial sax que détail boobu bien sûr gis nga loolu c'est une erreur boo xam ne mën naa euh, des fois mën nag mën na nekk force parce que boo euh, Sénégal xam na rek Pastef bi mu ñëwee dafa bëri ay détracteurs mhm. bëri ñuy manipuler bëri ñuy sosal Pastef ñun dégg nañ lu nekk seen waa ji violeur la salafiste la dafa bëgg ki xam nga mu léegi nag dafa dem dafa defar ci booy benn benn euh, réaction boo xam ne ñoom lépp lu anul ak ñoom rek pour ñoom c'est quelque chose abattre. Mm. du ñu sax dem xool eh, xool analyse ndax li muy wax nii ndax am na ci am na am na une certaine vérité bu ci nekk. Mm-hmm. wala affaire yi faire la part des choses boobu du ñu def noonu man man man j'ai suivi ça. man mm-hmm. personnellement parce que élection locale yi ànduma woon ak yow askan bi. parce que au niveau ma commune y avait des nga xam ne mi ngoon biir yow askan bi man gëwuma ko du ma ci ànd parce man ay principe laa gëm nekku ci woon ma taxaw ne du ma ànd ma ay nitu intérêt ngeen gëmoo leen dara. Mhm. <laughs> yàgg yàgg après ñoom gis nañ ni mu demee l'avenir m'a man man dama leen di kon mais dama ne euh, à l' faut que ñu relever suñu niveau xam ne newtuñu ci ay considération personnelle wala ay combat trop ñu jëm moo gën a metti te xeex bi nekkatul ay xasante wala saagante xeex bi dafa laaj intelligence laaj information laaj xam bu doy pour que ñu li ñu bëgg parce que du nekkatul amatuñu man man dama tout temps. opposition bi fi nekk ñun nous n'aurons nous n'aurons pas d'opposition. pourquoi. parce que ñi fi nekk. ils mais xam nga état bu nekk aussi par force. Euh, dans les normes dafa war a am li nga xam ne moom mooy opposition. waaw léegi damay may ma déroulé ma expliqué pourquoi nous n'aurons <laughs> pas d'opposition parce que je par rapport ak opposition bi fi nekk. <laughs> li fi nekk gum quoi. ok peut-être que d'ici quelque temps dina am ñeneen ñuy ñëw indi ay idées yu gën a pratique ba pare wane engagement aussi. ok tey Karim il est dans son rôle. Mm-hmm. Karim pour rien au monde existence am boobu muy prôné. du ko du ko du ko tayle pour ñëw moom. man bi nga ko nee damay engagé wu Pastef dafa bañ ba wax ba dëgg fa ma ne ko dee dama def. munu ci dara sama magu bopp la ma dem engagé wu nekk ci parti bi di militer à notre niveau. Mhm. moom dans sa tête il dit que doit être équidistant waruma far ak pouvoir waruma far ak opposition man ay combat de principe kese laay combattre. ok loolu mooy Karim Gueye. léegi nag am na ñoo xam ne peut-être que bi ñu engagé wu ñu xamee Karim mi ngi ko découvrir yàggul quoi. wala ñu koy ñu koy découvrir ci fekk Karim mi ngi défendre Pastef. Pastef mhm. foog ne Karim il est avec eux il n'est avec personne il n'est qu'avec ses loolu la gëm. te ragalu ci wéet da koy wax te da koy defaan mais ñun fi ñu jëm nii opposition politique laay wax quoi bi fi ne ils peuvent pas nous opposer parce que bu fekkee bëgg suñu réew man gëm naa ne ñoo leen gën bëgg réew mi fop bu fekkee engagement ñoo ko ëpp fop bu fekkee pare jox suñu bakkan pour réew ñoo ko gën a pare fa opposition yi fi nekk laa wax quoi ay benn ay euh, benn bokk yaakaar beeg taxawu Sénégal affaire yooyu ñoom il peut pas nous. ah taxaw ñoo la wax opposition lañ bokk. ah bu ñu bokk <laughs> <laughs> damay laajte rek. <laughs> fan la bokk. non damay laajte rek. non opposition lañ bokk. Mhm. président bi nga xam ne ñoom ñoo porté projet boobu ba mu met ko ok ñooñu laax ñoom ils peuvent pas nous opposer parce que moom laa lay wax li mu ñu li ñu réew mi jaral jarul leen ko ñoom te prouver nañ ko te nañ ko prouver waat même en étant au pouvoir du génne lu toll ni yotaa suñu citoyenneté tey fépp fu ñu gis un combat de citoyenneté xam combat de principe. Mhm. même si ça si ça va à l'encontre de du pouvoir. Mhm. ñun dañ ko wàcc dañ ko defaan. ok ñi ngi ñi ngi ñi ngi support mouvance bi. léegi moo tax ma ne ñun dañu war a yéeg suñu niveau xam ne suñu projet opposition la mooy lan yi mu lay wax tout à l'heure parce que ñoo ëpp doole ñoo ëpp ñoo ëpp nu mu tudd terrain de manu de manipulation. parce que y a les bëri na ay mbir yoo xam ne ñoom ay ay ay cla ay ay yoo xam ne mën nañ ko activer ba ba ba ba ba ba nu mu tudd ndax ñu. ok da da Sonko ak ak ak ak. son Bassirou Diomaye ak Diomaye Faye wala action peuple mm-hmm. ak Diomaye daal euh, divergence au sein de de de de cette de cette dynamique mm-hmm. ba li ñu bëgg def ko mooy lan lii parce que Sénégal bu baaxee du leen arrangé ñoom si on avait avant notre souveraineté du leen arrangé ñoom léegi dañ nekk ci combat boobu mm-hmm. moo tax c'est mooy mooy mooy c'est mooy priorité mooy ngeen combat primordial bi nga wax tout à l'heure suñu xeex mooy lan li tax ñu ay manaf su dee ci wartuñ ko trahir parce que dafa am ay bakkan ci des am ñu ci tëj ñu def ci lu mhm. kon tant que réussir ñu Sénégal dans ce pays là dans dans dans ce dans mhm. pour ñu réussir loolu ça demande beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup d'intelligence dafa laaj xam-xam bu bëri bu bu bëri mhm. parce que li moom laa wax foog ma revenir si am na ñu ko réussir mais demul après deux ans après gis nañ ñu mu demee comme ñun foog ñu foog ñu foog ñu intelligent pour mën a li ñu bëggal li ñu bëggal suñu réew ñu mën ko ñu mën ko accéder je sais pas ndax je me lii du suñu opposition suñu opposition mooy lan mooy les lobbies qui sont là ici au Sénégal ñëpp xam leen ñëpp identifier leen muy benn la France néocoloniale ces entreprises ah. Mm-hmm. y a les Turcs maintenant. yi fi nag gis nga léegi tous les grands chantiers instant ñoom ñoo koy gagné y a les chinois ñoom seen int nga gis accords yi ñuy signé ñoom c'est des accords yi nga xam ne c'est désastreux ça ça ne profite pas loolu nag pour ñu mën a suñu suñu suñu ñu jiital ñu pour ñu mën a am légitimité ba mën ko négo renégocier def ko def Sénégal dem ba ne am ci superma am ci supérieur li ci ëpp ci li ci gën ci njëriñ mën ñu revenir ñun le peuple sénégalais loolu dafa laaj beneen beneen niveau niveau.